koor gi daal dara du dox dara dara dara koor gi daal fukki fan yi daal moom xaalis bi nii lay def. dootoo gisati dara dara xoolal ginnaaw yi ma leen bindee ba léegi xoolal yi ba léegi mënu maa ba jaay ko kenn man daal dëgg dëgg dëgg dëgg man daal jom bi daal koor gi daal fukki fan yi waaye bu xasee jàll moom moom daal yéeme na daal yéeme na lool moom doy na waar ah salaamaaleykum ah, waaw waaleykum salaam waay sëñ Mbeng waaw Mbaw waay Mbeng waay waay Mbaw nga la Mbeng Mbeng yaa ngi ci jàmm Mbeng ñu ngi ci jàmm bu baax kay alhamdulilah ah, tarkal la kay alhamdulilah ah, waay yow danoo ci koor gi waaw waaw ma woon nag naa la seet si dëgg la waaw ma am ci ganaar yi ganaar gu ma mën a ndogoo waaw xoolal ah kii moom mooy gan moom. kii de ak seq ah ah man daal yii xeeb naa ko. yii baax na de. mbeng yii xeeb naa ko de. yii baax na yii kii amul kanaara kanaara. mi ngi mi ngi. wa voilà nag. mbeng kii yee baax. voilà kii. kii yee baax ci man mbeng. kii moo baax ci man. xam nga bu baax a baax. waaye yow ëppal sa loxo rek ëppal sa loxo rek ah. xam nga ni daanaka moom daa koy lekk rek mu jeex benn yoon ëppal sa loxo rek ma ni ëppal sa loxo rek ah, ëppal sa loxo daal ma jox la junni léegi léegi xam na waaw léegi bàyyi jox ma junni ak ñeent léegi waaye mbeng nag bàyyi ko junni rek bàyyi ko junni ak ñeent waaye bu lorante ak man waaye nag man nag ah, dëgg dëgg mbeng nag yow daanaka fi mu toll nii soo ma ko toggee da nga ciy lërëx dong gis nga ko nag daanaka nag fi mu toll nii teel junni bi waaw ah daanaka doy na waar rek wax dëgg yàlla nag moom daal xam naa doy na waar rek am junneeg ñeent a ngoog na nga góorgóorlu kon na ba boo ko toggee sa tànk bu mu jaar kër ga de deet deet ah déet da amul kat danga ah. ma ko jaayee lu seer ah, seerul kat su ma koy lekk doo ci lekk laa ko war a jaay jaay ko junneeg ñeent sama kanaar ak daaw ga daanaka yaa ko lekkoon waaw ah. waaw takkal ma takkal jox ma gaaw takkal jox ma gaaw de ndànk de ndànk de. takkal. takkal na dëgër. waaw yow bu baax waay. waaw dafa tànk waay sa loxo yi nga mel ni ginnaaw bi ngeen dem ah. bu baax waay takkal. dégg ah, jërëjëf jërëjëf yow xam nga daanaka yaay sama géwal gis nga waaw jeex na waaw ah, baax na waaw kay jërëjëf waay jërëjëf loolu moom euh, damaa gis ne sama koor gi jàpp na ma ba nga xam ne maanaam sama yii yëpp ak yii dugg na yii moom boo ci reere ba bay jeex na defe naa yëpp ay noddante foog naa ne moom kanaara rek moo ko mën a indi ah, baax na jërëjëf mbé waaw baax na jërëjëf jërëjëf laa illa man mi tan jàmbatu xay ay sàcc fi xaaral doon naanee ndox ba tey munumaa fexe fexe fexe rek ba sama kanaara gi ñëw rek ah ah Anta. waaye yow yow ñëwal waay ñëwal ah ñëwal mi ngi guddi de fi doon ni daanaka tey jii moom damaa war a def li may def rek daal di teel a fatu ndax fi doon léegi rek jàkka ji daal di daal di sonni xëdd. lalal ma fii euh, kii fonde waaw napp fonde bee nii. lalal ma fi napp kanaara gi. nijaay yow moom. waaw beral ma leen nii ta tàllal ko kii moom ginnaaw kanaara ngay ciy tege dafa war rafet nii waaw kay doxal doxal nga génneel ma leen ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw fi nanu daal di ñëw ma wan la léegi ni may def waaw bii pour gone yi bii chez moi. <laughs> ay na yow de tegal ma ko noonu rek. sama programme la bu ko kenn yàq këy tegal mi ngi de jëm <laughs> nii laa bëgge na ndox mi ñëw waaw na ndox mi ñëw jëm <laughs> ah noppal na la yow asalaamaaleykum ah, eh, anda Anta jëlal jëlal maaleykum salaam. ah Ndiaye Ndiaye. Mbaw Ngalla Ndiaye. Mbaw Ndiaye. Mbaw Ngalla Ndiaye Ndiaye. Mbaw dara ñu Ndiaye tarkalla ah, ah, ah. moom kay kiimaan la moom. waaw moom kay. doy na waar. wuyu ma. waaw wax ju bari ko mën. xam nga ni man dama woor waaw ndax damaa wérut waaw waaye dégg nga maam suñu borom dogal bi na ni daal waaw dara dugg soo biir bi ginnaaw loolu nag waaw suñ borom andi na ko fi mhm. ndax yow xam nga man ah. sama digganteeg fonde fonde la dara dara ko ci sombi moom dara la fonde waay waay ah, waay sama dépense bi dégg nga maam ndaw si dem di dama jëndal ay fonde naan na damaa taayee toogu damaa taayee dem dafa nga ni loolu rafet waaw man xiit bi ma xiit ah. bàyyi gi ma bàyyi kër yëpp ñëw sa kër. fonde la bool nag fonde la def boo ko fi bàyyee yaa ko fi ba dongo yi laa ko doon yót. ah daa yéex daay kon ko fi fekk na jeex njaay. na sa biir fees laa la wax yow kay tarkaa la rek ah. Eh, ni ngeen di dogo. ah yéen a su ma gën ma suuf. yéen tey daanaka mën ngeen a war de. moom kay nag moom moom kay moom daanaka nag moom nag daanaka rek nag njaay moom mi ngi nii rek maw léegi xet gi sax daal bëgguma sax mu xeeñ ma na jeex moo fond na jeex rek maw nga yaa nga ca oh. na jeex rek sa laaxa nga sa laaxa nga palaasam ne waaw ah ku laax laax bi laax dama koo xam da koo nattalu fii rek biti Hmm. da koo nattalu ci biir rek indi ma ndax xam nga mom daanaka kii la nee na moom temps yii daa nekk di togg. xam nga sax boo wooree. waaw da ngaa war di lekk lu nooy bu koy ba sa biir di tax. sa articulation yu ubbeeku. da nga maam nga mën a lekk bu baax. waaye woor ba pare di lekk ay ceeb ay ñànk tàng da ngeen di dee lii ngay def mooy baax. waaye Ndiaye dimbale ma nag. Hmm. yaa ngi bëgg a bari wax kat ah. ah. Maodo nag maa ngi reer waaye daa mel daa mel ni sa xol baa ngi gun guni de. lekkal rek Ndiaye ah. lekkal rek nag. Hmm. lekkal rek ah. Ah! waaw kay kii ko kii ko ah téeral tuuti téeral ah nii tuuti waaw waaw dee ko yàgg-yàggal waaw ah ah ah, ah, ah Njaay wuy ma taxawal hmm? xaaral rek Hmm. njaay laax bi dafiy yàq dimbale ma ci laax bi Ndiaye. ma dimbale ma ci laax bi ah. ma ma ni. nga waaye du ma du ma guuxaat. waaye bii bii bii waaw jëlaatal bii déedéet Ndiaye jëlal bii pare suur nga kon kër la nii. Ndiaye oh. xaaral ma tegal la ci potum ndox. ah. xoolal li nga ma rek nga xoolal lii. Ndiaye jëlal ka jëlal kaasu ndox rek. jëlal kaasu ndox. Ah. amel nga ma àq de. Ndiaye jëlal kaasu ndox. ah jëlal kaasu ndox. moo kaasu ndox. laa ndox benn la. da ngay gàllankoor lépp laa tooy ndox lépp laa tooy benn la. jël ko. ah jëlal rek. borom ndox waaw jëlal. jëlal moo tax moo nga ma de. jë jëlal. Oh. jëlal rek. Oh. albaaw sadi da nga ma ok waaw jëlal oh. ah? tarkal la. dama lay doon li ma neen nag. daanaka moom. Njaay doo jëndale. waaw rek ma orienté yow. ah léegi ma ma na bool bi na diis nii. sa alice bi donc xam naa ne ba bay ba ko teg. dafa ni tut. Njaay tegal nii sa bopp bi xam naa ne laax boo ko lekkee noonu ngay def. ok ah. Anta. Anta. Mbao. waaw kay na na na sama kanaara gi génn waay. ah ah, ah, ah wax loolu. kanaara. ah kanaara. ana yoonu kii ba duus ba. déedéet ah da ngaa bëgg kii ci kii. ah ah. wala ma. fii la rek. Anta. ah. Uh. nga yéex nag. dégg nga Mbao. waaw. ok moom day taral nga ma de. ok. Ndiaye Ndiaye. macha allah taral nga ma de. Ndiaye. Anta. kontaan naa ci yéen. dem ko Ndiaye. saa xol bi sedd na ci yéen. jërëjëf Ndiaye Ndiaye. ah maa la gën a kontaan. Ah. maa la gën a kontaan. ngam oh, oh. ko Ndiaye ah. ma maa la gën a kontaan Mbaw loo wax nga de. Mbaw. Ah. Mbaw. Mbaw. Mbaw nga am. ah looy fii fenn dama fi amoon def naa ko. kii de kii. ñu seet ko. Mm. kii de moom. barkaal mm. la rek. Mm. ah. yow yow toppal nii yow la koo ñëw. bilaay mooy baadoola. sëñ Ba Wute yaay baadoola. bilaay mooy baadoola. ñëpp parti